mbokk yi kenn ngi ni koo xamante ni kii moom la ñuy wax maître elas Diouf doonoon avocat boo xam ni sénégalais yi nit ñi daan nañ ko tuddee avocat du peuple waaye depuis quelque temps dafa mel ni moom ak peuple boobu doon ko tuddee avocat du peuple bokkatuñu gis-gis ci li xew ci penc mi ci ay doxalinam ak waxinam bokk na ci li tax ñu bari génn ci liñ ko doon wax naan avocat du peuple di ko wax yeneen i wax moom nag ku doon chargé ki nga xam ni moom la tuddee Ousmane Sonko la ci mbir mi waaye nag mbir mi dab na ko ba muy yëkkati kàddu yi ñu déglu kàddu yi barki alxuraan bokkuma ci ñi nga xamante ni bi séq naag aji saar dara barke alquran musuma sekk ak aji sar dara di ay kàdduy maître elas Hadj Diouf yi nga xamanteni bi mom ngeen déglu léegi mu wax ko li reelu nak boy lenn moy ki nga xamanteni ki mom moom moo défendre ki mi défendre mom mo wëlbeutiku ay tuuma dal ci kawam bu muy wëlbeutiku di waat di wax daan bokkuma ji lim wax luma gem la gëm naa ni sequtat dara aji saar gëm naa ni it ñeneen ñi ñu bind ci liste bi sequñoog dara aji saar comme nag ni ma gëmee ni jëmm jooju ñuy wax aji saar ak usmaan Sonko sequñu dara loolu moo may delloosi ci ma gëm waxu maître la mais li reelu mooy ki nga xam ni moom moo doon défendre tey moom la mbir yi wëlbati dal ci kawam ak ñu mel ni ñoom Moustapha Diakhaté de ngeen ko sànq ci vidéo bi ma teg mu leeral ni lu tax léegi ki jiiñoon ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko gëmuñu ko léegi lu tax ñu koy gëm mu jiiñ keneen kon léegi dafa mel ni mbir mi boo ko seetloo moy mbir mi dal waratuñ ci gëm leen day delu ci li nga xamanteni bi man mom la démarré won ci jëlbeen nga ke ni li nga xamni ni xew na ci pench bi ginnaaw bi ma dégloo ñi xam ndaw si demb ak barki démb la wax la ma tënkoon ba léegi ci la ne muy musuma gëm ay waxam musuma gëm ay waxam mo ñuy delo si ci li nga xamni ni na ci biro juge ba ba aji sar demee ginnaaw bi MC Niass yóbbee li nga xamanteni bi mom lañuy wax audio ya solo ci mbir mi moy MC Niass dafa dem yobbu ay preuve Presbi presse bi manifesté ko bind ci lendemain ñu ci mais aji sar dem muy ji audio ya ñu xey presse bi ñepp andando bind ci li nga xamni moy mbir mom mu mel ni dafa mel ni dafa am ñuy commandité presse bi di leen wax ni nga xamante ni bi noonu lañ war a doxee parce que ni yëf yi di déroulé dafa mel ni dafa am fu ñu féete ci mbir mi mais li doy waar mooy Adji Sarr dafa nangu ni enregistrement yi am na ginnaaw bi mu biralee ni enregistrement yi am na waaye mu wax ni daf doon piéger ki nga xam ne mooy MC Niass foofu nag la problème bi ne mais ci kaw piège insignes mu tànn moom defe naa ñi mu gën a yeb bu fekkente ni li ñu wax ni noo yi mu tudd ci biir ci liste bi ñu def tudd na leen ci audio boobu ñooñu kon defe naa ni nag waruñu bàyyi yëf yi mu daadee sedd parce que kenn duma jël sama tur di ko fowee di ko dugal ci lu salte lu xeebu lu mel nii di wax ni séq naa ak diw séq naa ak diw ma di la seetaan parce que ñooñu dañu am pour wax ak moom lan la leen yabee ba tax muy tudd seen tur ci kaw même bu doon day piégé lan la leen yabee ba tax muy tudd seen tur gis nañ ku nekk a ngi waat mais waat yi dong faju dara nit ki mën nga wax ni defuma waat mais da ngay nekkat ci côté nyubari parce que amna ñu bari ño xamanteni bi dañ doon wax ne jigen mom ku mu tuddu rek manam même bu fekente ni viol amul mos mom amna, ñi doon wax lolu lutax wax jooju ñu bëgg ko écarter fi et pourtant bu fekke ne ndaw si nga xamni mom lañ wax ni mo tuddon feulé Ousmane Sonko ñu ne ci enregistrement yi ndaw si ci jëmi bopam mo prononcer wat tabit tour yi ñoñu tamit ana ñi doon atté daan faral di wax ni ndaw si mom le fait que néna na mos na rek mos mom amna, waye nañ écarté ne viol amul kon fi dañuy lol, lool wala dañuy weddi lool wala dañ koy deggal fële weddi ko fi ben rek moy li mëna né moy ñu andando xamni ñom ki ñu ko nit la ko xamni di rombanté ak mom sax wulut dafa am ko xamanteni sunu borom dafa defon xelmi xawa nakari bi xelmi xawé nakari ñu am fo xamné dañ fa saccion ay to ay patas ak et cetera bi ko police jappé ñew téye ko ne ko wax ñu ñi ci bok ku mu romb nga xam ko mu xam la mu ne ki ci la bok nak dafa melni mom lañu gis ci mbir mi ndaw si dal képp ko xamni ni peut-être mës nga ko wo téléphone wala nga mës kaa dem massawu ko peut-être mu boole la ci ñi nga xamante ni bii ñooy liste boobu waaye li am solo tale